ay jigéen dëgg ay jigéen yu jàmbaax di liggéey di daan seen doole ngir seeni njaboot loolee tax ñu dugg ci njaayu xaru tabaski kii di Charlotte fukki at ak ñett la commencé di jaay xaru tabaski loolee tax na mu dugg ci ay kuréel yu bari ngir chaque weer muy dajale mën a jënd ay xaram. ça fait treize ans euh, d'expérience douze ans d'opération tabaski donc deux fois kii. Euh, Le euh, centre est laa commencé ça fait presque euh, huit ans Magnifique, c'est même place. Nous avons constitué un groupement groupement B, en association donc euh, groupement yi est association la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal qui est une association nationale de regrouper des femmes des jeunes éleveurs donc dirigée par l'honorable député Aliou Dembourou donc man ci laa euh, présente départementale euh, bu bu couvrir 19 communes et présente euh, régionale. régionale suis assisté dans la région bi pour l'instant provisoirement donc il y a tay nit ñi bu nan nat les femmes ñun sont def nat teggi ñun dañuy def chaque samedi ou chaque dimanche 2000 francs de suite chaque 2000 francs donc nous sommes regroupés en groupe de femmes. Donc, chaque semaine, nous pendant 4 semaines. Semaine bonnec, 8 000 les 10 mois, c'est 80 000. Donc sur les 80 000, dans les années, on a déjà des déjà. Les gens 120 000 comme, 140 000 euh, qui est différent des Tchogal. les événements les dam joxe boromam jël li nga am yóbbu ko sa kër liggéey daal amul góor amul jigéen lu waaye mën di liggéey te mu daan sa doole rek baax na na dagan rek di xool na di xool nekk ci xarit ci daral bi di jaay di fanaan ci daral bi di yenn ci daral bi xam nga am na leneen lu ko gën mais comme yàlla dafa nattu ku nekk natt bi la yàlla teg dóor waar daal man moom jaral na ma ko depuis 20 ans maa ngi koy def nag sama liggéey la. di am jafe-jafe ci seen liggéey. taxna ba jigen ñi di ñaax autorité yi ngir ñu jappalé leen ndax dañu bayé seeni ci kër ga di fanan ci daral yi suma sañon nak autorité yi ñun ñu fi am place te yor suñu budget bu benen yonenté bi financement amé nañu xol di fi nekk ngay goor muy jigen ak nga xamné woor nga mu xam ci anam ñen nga leen di joxé sa alal pour ñu liggéey bu ñu paree delloo leen comme ñun li lañu gëm man mom li la gëm ndax ñaar fukki at xalé bi jigéen bi leen man di ka def man li la gëm li la xam بودي إيفن ما جنار موجود جنار لايدم بخار جتة خار لايدم ملي لاجم سما أمانة كم الدم بلا أكو الدم بلا سما مرام بنا أكو أنت رب نقبل لي بلا ينجي يوكو دولا بني بري دم رام برسلا نقلي جي لجي لا دني يو دني تاك بلاس لو سوني باش 12 متر دي باش بي chaque jour andes na suñu rakay yu bax suñu tiam ñu bokk ay place ñu ñep fim la ne bokk na ko juroomi xalé goor place bi mais ñom ñu ngi liggéey ñu ngi may dimbali puis bu dee root amee xale yu góor yi root bu may xont ñu jàppale ma damay sant rek daal war ni méttiwul te yàggut fukki fan dongu rek boo paree man jour tabaski dina ma fekk sama kër may nelaw bu nañu di yar sama jëkkër ci boppam mooy togg la may togg man maa ngi tëdd di nelaw may sant rek te di ñaan ñaanal sama jëkkër nag parce que lii yëpp nga wàcc sa jëkkër ci kër gi di fanaan ci daral ku gis li xam ne métti na c'est pas du tout facile euh, pour ngay gis femme euh, pendant 12 ans on était deux y a une femme bi daan jógee Pikine euh, yàlla def aussi Daou Djek at Daou Yop donc des voisins les mécaniciens aussi Nous ñu beaucoup aussi je les de passage parce que góor buy fanaan daral donc ñun nan la programme toujours comme li ñuy wax ci jigen rek euh xajal ko du yomb waane ñun ñoy xajal suñu bop dañ koy forcing ba jot lu ñu yor parce que goor baxna jigen baxna rawati na jigen bo boo luma am da koy yóbbu këram pour dépenses donc ñun fofu lañu ñuy mbir mi des fois am na dul gisee nonu accepter ko ou pas amna ñuko dul def mais ñun on l'impose camion bi bu waccé ñun ñoy jëlé camion bi ba ay Fuuta wala ba ay eh, mauritani mais heure bu camion bi wacce deux jours nga fi gis doto fi gisati xar ñu renforcer wat sen obligay taxna ba talu ñu defaru li len ñor moy liggey ngir ñak jariñu ku nek rek ak li nga gëm dafa am jigéen ñoo xam ni sangu mo len mo len gënal man je préfère tok dan dole yobul sama njabot moma gënal man fatlikuma fu tabaski jotay ma solire wala ma def ay pose ongle ak yoyu awma jot di chaque jour que je fais, chaque jour que je fais, nous ngi chaque jour que je euh, période pendant les 12 mois de l'année. Nous, sommes une famille presque qui ku organisation bi da ngay euh, éleveur chaque jour tu es tu es active au niveau des femmes.

di ma ko jox bu jour tabaski ma dem verser ku nekk li nga am yàlla rek moo tax may wax ay doomu nit ñu baax du banque du dara bi pa li ñu ma lebal sax dafa néew parce que corona bi moo tax doole bëriwul waaye maa ngi ciy sant parce que am na ñeneen ñu ko amul maa ngi sant bu baax na nit ku jël wóolu la jamono ji di la jox alalam bëreetul waaye am na ñu koy def te dama leen di sant bu baax clients yi ñëwaguñu te xam naa it dañoo amagul xaalis mais xar yaa ngi fi taar kala rafet da boo bëgg a dee mais clients yi di nga xar nag ku ñëw di nga am xar bu ne am nga fii nag ay xaru yar fi am ci daral bi xaru yar dafa méttee liggéey mais baax na ba tey coggal am na fi mais tuuti mais xaru yar ñun moom la ñuy jaay azawat am na fii laadum am na fii talaabiir am na fi yëpp boo bëggee moon la xar yi ah. ay xar yu mag a ngi nii yëpp dañ ko yar te ñun ñoo ko yar suñu kër yi lépp am na loo fi gis rek am na fi lii sama kër la nekkoon biir Parcelles ni man maa ko yar chaque année damay def lu melni damay def balami damay def damay daral pour rafetal sama mais tout au début à nañ euh, programme à partir de 75 donc 75 amatul ñu 85 comme euh, comme achat 85 ñu à peu près 90 dugg 100 voilà euh, race donc du bok bourse bi aussi donc xar yu

bëgg jënd xar day jafe ci ñëpp ne nit ñi ñëw jënd seen xar dugal ko ci biir kër yi. njaayum xar tabaski ñu gën ko xam ci góor waaye léegi mën nañ na sax jigéen ñi ñoo ko dàq góor ñi ba tax na daral boo dem góor boo gis fekk jigéen ci wetam muy jaay li ni mel di firndeel li ñi naan góor baax na waaye tamit jigéen baax na